te jëlee woo ko ci wow wala si jaala uslul adabi yuxfi jahalatan waxu fan nasabi wa xasaa'iril ilmi wal adabi li faw si bi sawaabi wa sawaabi ndee na lépp loo lépp loo am te am ko ci ay nax fa saayixun ba saafilu lépp loo am ci dëgg yàq ak teggin may la ko nee na lu ko lu ñëw bul ko ci tegee dana ko attan sëñ Tuubaa nee na sama ngànnaay moo yar ak teggin ak juddoo fu ma a juddoo kenn amuma taas sëñ taas ñu daal di ciy teg ne ma daal di ciy teg ne ak ngor ak fulla ak wóolu yàlla ak xam ne ku yàlla doo dara noonu la sëñ Tuubaa doon dundee rëgalul ku yàlla bind wéet du ko tee du ko tee gore ko du ko tee gore sëñ sëñ bi ba muy wax inna la ahsana minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi annahum mujannata fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yaqtuluuna wa'dan alayhi haqqan wal injiili wal qur'aan wa man awfaa bi ahdihi minallahi fa tabshiruu bi bay'ikum llazii baaya'tum bihi saykon hotorasem tayibonan haamidola haamidono sayona rakona sajidona laabirona neena ko dem ma dem ku demul ma dem li sëñ Tuubaa daa dox te nee na képp ku ne seen sëriñ dara kala ko wax waxul dëgg sëñ Tuubaa rek dara nee na képp ku fi dugal ci bàmmeel wax ne kenn seen sëriñ ku du sëñ Tuubaa boo yoroon di yàq boo jógee kooka dara du ko jar kon sëñ Tuubaa daa neexal lépp lépp yomb te lii wax dañ koo gëm ñun ñun ay taalibe lañ taalib taalibe lañ mu ngi jóge ci taalib ak matlo taalib matlo kiy wut ak ci ki wut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taalibe la mooy premier taalibe bi yàlla sëñ Tuubaa di taalibe taalib mooy ku mag ci yees madloo mooy ci ka muy wuti taalib madloo maa xadrulaa xadri ina la xawi naase allah yustafi min la yakun min ila samana yaa ali seen am na irkao wasjudu wabudu rabbukum wa huwa lil xayri laa lakum tufiyoona wa jaadu fii lay xaq jaadi wa tabaakum وأجعل أهليكم من دين من أهلين ميت أباكم إبراهيم سماكم نعم المولى ونعم النصير سورة المؤمنون تبارك الله ما شاء الله yonent amatul yonent waaye ku ñu yónni du fi jóg sëñ Karim mi dañ ko yónni xam nga maanaam yonent mooy baatu yonent mooy nëb mooy ku ñu tur bi rek lan saase waaye jógul bi de yoon baatu yonente waaye ku ñu mooy mursal mursal lu ko jóg sëñ mursal yi gën a am maanaa ci yoon te l'islam ci la bokk waxuma ci yoonu murid ndax yoonu mooy l'islam na nga diglu baax boobu bu baax ñenn ñi dañu nangu dellu yi lànk waaye ku yàlla bind Serigne Touba si kër na nga diglu loolu dëgg la dëgg la kay képp lay nga yaakaar Serigne Touba si kër jarul xool màggal gi nañ màggale la buntu yëpp ubbeeku ku ubbiwu da ngay ñaan rek te doo ci am ndam ku ubbiwu da ngay ñaan te da ngay sax waaye sëñ Tuubaa buntu yëpp buñ màggalee la buntu yëpp ubbeeku te la la sëñ Muntaxa waxoon surtout sëriñ Tuubaa moom di mag di mag ci sëñ Karim di mag sëñ Abo sëñ Karim di ab taalibeem di xaritam di ab doogaam bëgg sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa bëgg ko ñu bëggante sëñ sëñ Muntaxa day sentir li nekk ci yaramu sëñ Karim nee na sëñ Karim waxuma la doom gi mu doon doomi sëñ Fallu waaye bëtin bi nekk ci moom bu ñu nit ñi xamoon ñëpp màbb ba àjjee la ñëw fekk ci ko sëñ Muntaxa ko wax Tuubaa zéro <laughs> waaw loolu warul la jaaxal. kay la jaaxal. Ah, waa léegi sëñ maa ngi leen di dégg sëñ Karim mii li mu jariñ jaam yi ak li mu jariñ yoonu mur te sëñ Fallou yónni ko ci jaam yi sëñ Mountakha yónni ko Alaaji Baara yónni ko sëñ Saliou yónni ko ñëpp yónni ko nit ñi de. nit ñi kenn moomu leen de ganaar danga koy ñoom dugal ko ci sa xar mu soog a dem de nit ñi nag kenn ñooñu leen andi leen seen karim de mm-hmm. ganaar danga koy dàq jàpp ko tëgg ko <laughs> nit ñi nag kenn tëgg ko leen ñoo dawal seeni oto ak seeni xel ak seeni expérience ku ñëw la nga gis nga dem nettali ko keneen koo ko ñëw ba àjjana dëgg la yàlla ko ci amiin nag foofu dugal a dugal yow séeré li wax laa yéen dëggal saa bi soxna moo ko yónni fi nekk waaw man <laughs> nga dégg rek da wax <laughs> li nga wax nii bu yàggul rek sëñ bi dama fee ñëw wan la ko xamante nii buy noyyi mi ngi noyyee ci li nga xam ne ci ci bakkan raakol lan ko def raakol buñ ko lekk gi ci raakol la koy noyyee mm. nga ne ma demal boo demee dina ko ñaanal lépp yàggul rek ñëw naa si matunu semaine soxna soosu waa ji génn te waa bi muy kii dañ koo tëjoon ci kaso yàlla dogal moo bi ñu koy tijji ne ko da ngay dem bu ñu ko fi ñu bu yàggul la génn bi mu génnee fan yi yoreel na hôpital ba cent mille bi mu ko war a fay soxna sa fa mu doon liggéeyee bi ñu ko arrêté dañ ko arrêté ne ko léegi mën liggéey bi mu demee ba so ba sëñ bi tane mu war a delluwaat bi mu war a dellu ñu ne ko yow fi ñu toll sa place jël nañ ko fi ñu toll nag loolu moo tax sax sax ñu ñëw nii ñu woo leen bërki démb ne leen indi leen seen i këyit ñu may leen ñu indi leen passeport ñu may leen këyit passeport yi far ñu yàgg fa mu passeport yi jeex ñu toll ñu nekk ci jafe-jafe loola nag mu ne ma demal waatal ma ci sëñ Abdou Karim mu ñaanal ma ndax yu aajo yooyu yëpp faj sëñ bi wallaahi la sëñ noonu nga ko waxee bi ñuy dikk fii guddi yeena moo fi ne ma saa buñ ko joxee garab danaa ko duñ la joxate day faatu ba waaj a fi ñu toll jóg na barkit moo ma woo tey ji ma demal ma ci loolu nag xam na ne fii buntu fari ba aajo la nga wax danaa danaa eh, wax ñaar yu yu leer waxi digg bëccëg farlu joxaane riido conk daa dem Amérique jëlee fi xaalis bu bari doon ko trafiqué pour mu ñëw xaalis ba feeñ mu ñëw yàq passeport am dootul dem Amérique ñu ne ko dootoo dem mu ànd ak man ñu dem kër sëñ Karim gële ci corniche boobu sànci guddi fii mu dem na ma sëñ Karim rek laa ci yaakaar ñu ànd dem mu ne ko danoo yàq sama kii sëñ bi ne ko dama wut beneen passeport bu yeex mu ñëw ma ànd ak moom sëñ Karim tofeel ko ñu may ko di ci kanam mbooloo mépp laa ko waxee. Mm-hmm. Pape Lissa ñoom ak ñëpp a ko mm-hmm. ma ne ko. dégg naa boo ñaanalee coon sekk mu génn biig la ma ko ab raw wax de mu ne ma kon naa ko ñaanal ñu ñaanal ko ci suba sa coon sekk génn ñaari yii bu amut yàlla ba ma gis sëñ Balla kii lim yor ci njàng nekku ci ay julli nekku xoola sëñ Tuubaa ko bàddil nit ñi ko bëgg itam loolu lañ ko bëggee de te sëñ Karim maanaam du trafic maanaam daa dëggu xam nga gis nga ñu nekk ci jumaa jee di julli vingt quatre seen vingt quatre ay naafeq xoola dafa am ñoo xam ne léegi jaamu yàlla sax métier leen ko def ay turi yàlla sëñ Karim fa muy jaamoo yàlla ak fa muy faji seen aajo day nekk ba tëju loolu ñu bari xamuñu ko ci man wéet nañ ba tàyyi mu julli ma toog di nelaw ñu hmm. bari xamuñu ko ci moom yàlla kenn bëggul koy yëstal gi nekk Sëriñ Tuubaa ne jëwriñ péere ngi nii li ñuy wax jëwriñ muru saadix a ngi nii surtout Sëriñ Tuubaa péere ngi nii te ba ma koy jey yàlla ba ma gis Sëriñ Bàmba wasalaamaaleykum macha allah. lay siburi Sëriñ Mbàkke